bëgg waat naa la ziaral la. delloo ziar sama waaj. ci loolu nag. Lamine maa ngi lay fay naka waar. maa ngi gannaaw ma ñu sant yàlla julli si yonent bi maa ngi sant sama ñaari waajur di sant sénégalais yëpp di sant monde entier di sant kilifa diine yëpp ak kilifa aada yi waa kër Cheikh naa Cheikh Saad bu Kounta Ndiassane maam Limaamu Laay xaadir laayeen ñaseen ñëpp maa ngi leen di sant di sant waa kër Sëñ Tuubaa yi bu baax. micro yi tàkkul ko jox waaye ay bonheur moo taxoon ngeen ma ko jox micro de defal ma defal ma teg ko noonu aywa kon ne. waaw di sant ñëpp di sant waa kër Cheikh Nassir Sadbou di sant waa kër Mame Baye Niass Tidiane Laayeen xaadir waa Si. di sant sëriñ waa kër sëñ Tuubaa yëpp di sant suñu kilifa di ko ñaanal gudd fan ak wér mu yàgg fi lool sëñ Muntaxa Basiiru di sant sëñ ba sëñ Bass Abdou Khadre bu baax di nuyu sénégalais yëpp di la nuyu yow Lamine bu baax a baax di la ñaanal jàmm di la ñaanal sa oto bi yàlla def ci jàmm te mu jig la nga muurloo ko ci barkeb Cheikhul Khadim di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal ahlu làmb yëpp jàmm di ñaanal sénégalais yëpp jàmm di ñaan réew mi jàmm yàgg fi di nuyu sama adversaire Ziza bu baax baax maa ngi koy nuyu bu baax a baax waaw Ziza laa jël. Ziza nga laal de. waaw waaw. xam nga ko. Ziza non xaw waaw jox ko. Ziz. ci loo nekk. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi ñu ngi sant suñu ñaani waajur di sant sama sëriñ sëñ Abdou Lahad ambassadeur di ko sant bu wér a wér <laughs> di santaat sama yaay di ko ñaanal yàlla wér-gu-yaram gudd fan ak sama papa di sant waa Pikine yëpp di santaat waa Pikine di nuyu sama adversaire bu baax Mamadou Camara maa ngi lay nuyu bu baax a baax. Eh, Mamadou Camara la tudd. Mamadou Camara la tudd maa ngi koy nuyu bu baax a baax. nar ba xam turam. parce que sama doomu baay la moo tax Camara la sant ba sant Camara. ah yow Camara nga sant. Camara laa sant Camara yi lekk. Camara yi noonu la fa demee rek. kon yow Mali nga dëkk. waaw lañ pire sax. xamoon nga ne Boucher Mali la. sama mbokk la. maa ngi moom ñu jaar dafa bëri moo tax. fan nga jaar. suma xarit la. mais làmb ñu boole ko parce que combat bi nekk na combat moom combat bu ma soxla tamit quoi. lan moo tax nga jël Boucher Ketchup. waaw parce que déjà dañoo ñëw combat bi ñu am adversaire yi ma joxoon ñu dem ba si biir Boucher xam na rek Boucher moom waxam quoi. waxam daa bëri Pikine waaw waxam dafa bëri Pikine woo ma ne ma. Oussine Oussine Oussine. waaw Pikine Pikine woo ma ne ma nii Ziza foog nga jël buuse waa Pikine ñoo ma jëlloo combat bi moo tax ma jël ko tamit. waa Pikine est-ce que xam nañ liñ la jëlloo. waaw mais tamit xam naa lu si ne am na risque non bëri na bëri na ñu ma woo bëri na du ma tuddi seen tur parce que man ba Ndiaga ñaa waxee doomu sëñ Modou ñaa rek laa njëkk a jël combat bi ak ñeneen ak staff yi xam nga ñëpp maa ngi leen di sant ñoom ñëpp tamit quoi wax dëgg parce que ngi ciy waxtaan parce que lii combat loolu am na solo kon kay buuse maa ngi soog xam ne am nga problème ndax waa Pikine ñoo dugal kii ci combat bi. Pikine amul ku a daan Pikine gépp nag. teel ko teel ko Pikine daa am ku ma mën a daan. joxañ ko. ñu tax ñuy ah, la mën a daan. waaw. ajal mi ko ah, may ko son buuse ba li ngay wax. Pikine amul ku ma mën a daan. kii de da laa bëgg a daan. waaye kii daf maa mën a daan màgget bii ñi dañ maa mën a daan. sa morom la nga yow Lamine xanaa da ngay wax la neex rek. day wax ah, Pambaay man Pambaay moo mag fuuf téeméeri junni yoon man su may man boo seetaanee samay samay vidéo 2014 nga xam ne je suis un petit man bébé laa yàlla nag mooy def lii ci nit yàlla mooy teral nit yàlla mooy darajaal nit mooy yokk nit mooy def ay mbir. bu la ko def waaw mooy jox nit kilifa mais ñii mën nañ maa jur ay ziza yi dañ may jur barke sëñ Bamba. ku la mag ëpp lay sagar. mënu maa ëpp sagar parce que maa ko ëpp doole. Lamine comédie da nga may déglu comédie indiwuma ci làmb ji gis nga promoteurs yi ñii ay ñii promoteur déglu waaw loolu moom metti promoteurs yi ngay gis nii pour ñu fay ma problème la man ci kase trente et quelques millions laa jóge waa déglu ma rek mënuñu ma fay petit moo tax dama koy sant ndax sacrifié wu na jaay bien pour tëgg ma fekkee nga ko toog nañ Lamine muy sacrifié wu di jaay ay bien pour tëgg ma kon loolu dama koy saluer parce que xam na lim ci jëlee moo tax sponsor yi ma am muy samay ñetti sponsor yoo xam ni. non dama leen di tudd ñu jàppale ah, ko. nga leen parce que dañ koy jàppale. ko jàppalee nag. su ma paree dinaa ko jàppale ko ba pare waaw. yaa dina ko jox xaar Clédor dina ko jox xaalis CO dina ko jox xaalis. c'est sûr c'est sûr yaa ngi dégg Lat Diop maa ngi koy woo dina ko jox xaalis loolu amul problème loolu c'est calé mais li ma lay wax mooy làmb ji man duma comédien kii amuma mu naan Mamadou Camara yow say fukki moroom ak juróom-ñaar fukk jaar fi nga naan Mamadou Camara yow ba may nekk Mamadou Camara da ngaa judd yow nga naan Mamadou Camara du ma xool kii du ma xool lii la ci combat. waaw bu see ngay napp de. c'est très normal nag quoi. xam nga xam nga tey jii bu defee lii nii quoi parce que moom lii la. dara sa xii yooyu muy def quoi mais naa la xamal ñaar yow bii ngay bàyyi dugg Pikine maa ak yow. dàq bëre ëpp doole dàq xeex yàlla na ko suñu borom may ndam. te na Pikine amul ko ko mu mën a. ma maa ngi moom ku ci dàq bëre dàq xeex yàlla na ko suñu borom may ndam. yàlla na waa Pikine de. non la xam nga làmb ji. nekkul làmb ju may caaxaane. làmb ji mois de mai la. heure bi laa commencé. moo gis samay entraînement jël ko dugal ko naan man xaw ma ci li ma dugg. petit promoteur nga dañoo bëgg pour dëgg. Eh, yaa may dégg. man toogaay bi yàgg mënu ma ko. kii boo gisee ñaari yaram yi nga xam ne du benn. Eh. yaa ngi dégg eh, mu ngi summeeku eh, summeekul yow summeekul. summeekul waaw kay summi naan dara man dama naturel. déggoo dama la bëgg a expliquer benn affaire yow déggoo lamb ji sama bakkan laa teg. ziza li ma la yow noppee ngaa dugg Pikine. Ziza. benn silenement laay sol benn kilo jeex na amul leneen. Ziza man maay wax ak yow. waxal ma dégg yow. yow sa nga bëri wax. dinaa la duma daan la. benn lenn laa lay expliqué. ma dégg suñu nawle lañ fi nekkal. te daam loo wax te fexe nañ ko jëfee. lan nee nga benn yaa ëpp doole. man maa la ëpp doole waaw taxaw da may bàyyi eh, ma wax. bàyyi ma la wax bàyyi ma la wax yaa yàlla ma yàlla suturaal. man xam naa foo taxaw man ñëwuma. wuy ma man yàlla man la gën a jege dama damaa ñëw ñëwuma. ñëwuma pour négocier daan la si kàttanu yàlla. mënoo maa daan sa fukki morom mënuñu teg fuur ah fu wóor man lim yow parce que sañ nga si ñeenti ñax yi ba pare. yan ñeenti ñax dama lay wax rek moom lu tax moom lu tax dama lay wax dama lay dama lay cax. ji kaar rek lay jiital ñaxumale yi ñaxumale yi. da nga may déglu. non déggoo la ma la man maa ngi baax. wóoy ma ah yow sama. yow sama combat yow. man maay diriger. yaa diriger man maa la ëpp doole. waaw Lamine ñëwuma pour comédie. da nga may déglu Lamine da nga may déglu. xoolal Lamine man maa ñëwaat ci làmb xam nga tax mu ñëwaat ci làmb. xam nga tax mu ñëwaat ci làmb sénégale yi laa bëgg a won ni man du ma comédien làmb. parce que moom ko bàyyi daaneel bi ngay changé. dama bëri ay soppe. yow affaire premier genre ma dama bëri ay soppe wuy ma soppe yooyu ma bëri dafa am ñoo xam ni. ñii doo yaa ngi dégg ñii dañ maa sopp ndax ambiance bi may def du ma ko bàyyi mukk ci àdduna dama leen ciy béggal saa su ne li ma fal du ma folli yaa ngi dégg ñii bëgg ma ci làmb bëgg ma ci may defar ñii ñi may bëgg ma ci social ñii bëgg kii nag moom li ma ko nar a indil bi mu juddoo ci ndeyam ak baayam ba tey musu koo musu koo gis. waxoo li am. yow waxoo am benn dama la ëpp doole. maa ku ci ëpp doole dàq na ko suñu laa ilaaha illallah amiin. wóoy ma wóoy la affaire kaay kaay kaay. non dañ taxaw. nee na affaire bi le premier lay commencé. le premier lan lay commencé bi le premier janvier lay commencé. le si la parce que yow yaa ko wax. yow sañ ngaa wax loolu. léegi léegi loo mu wax. Ah, lan la wax. dëkkoo Pikine. man Pikine laa dëkk. boo ko Pikine sa digganteeg yàlla ak rasulillah. yow yow nga ne ma léegi barki Seexul Xadiim man sëñ Tuubaa rek laa yaakaar. moo ne ma bokkul Pikine gëmul Pikine. xam nga dafa daw laa xam nga jaxase ma la de yaa ma ko Pikine waaye léegi Pikine nga bokk waaye léegi Pikine nga bokk mooy ma benn xaritu benn woo ne Ziza yàlla nga ko daan. ma leen Pikine. yow yaa ne kon léegi ko. yaa ngi li ma bëggoon am naa ko. non problème bi du kii bu bokkul Pikine kii bu bokkul Pikine ma ma bàyyi ji parce que man li ma bëgg Pikine laa bëgg def Pikine amul booy ma mën a daan foofu. yow nan la ngaa dugg Pikine. yow man maay ku lay téye. man maa sëñ Abdou Lahad mi ma yaakaar. billaahi wallaahi laazim yow da nga ma tax yow li ma mus def def ko ci làmb ji bu yeboo nga liggéey yow yaa liggéey man damay lekk di naan di tëdd di nelaw di am ah, doole man li may lekk rek protéine la man air bi may nooyi rek protéine la yaa ngi dégg sa lii mënu ma daan man di laa yaa mais foog nga sec yaram bi amul vitamine sama waa ji non bi am na vitamine amu ko baxalu Saloum lan comédie lan man maa ngi baax dugg ci comédie déggoo li ma la yow naa la lamb ji jëluma ko pour comédie jàmm dama ko duma la tërëma lay duma dama lay daan su ma la ko waxee gëm ma man du ma waxantu waaw ba nga ñëw la jox nga ndékkee kan lañ ma ndékkee man yàpp laay lekk sa fajar seeraas bi laay ndékkee baax na wàññi wax ji wàññi wax bi man dama lay duma dama lay daan non non non mënoo ay njaga ñaa ko jëlloo waaw jërëjëf loolu am na solo. jaga ñaaw jaga faañoo barki Seydina Muhammad boo taxee di def sa affaire yi bu ma la jàppee wala duma dama doo kuy xeex. du ma xeex. do billaay doo xeex ak. bu fekkee combat bi ma jàppante man de. pantew ma ak ma pour foo man damaa ñëw. pour jàpp man man a tëree dugg. yow non combat leen nee ngeen toog. très bien faire faire régler faire pas régler bi situation waaw faire la régler la situation waaw mais mais mais Bousse Bousse Bousse yëpp nga ko Ziza. Ziza dama koy dóor xam nga la. waaw sénégalais may déglu Issa Pouye lañ ma jox Issa Pouye. ma bañ. xam tax. soo ko daanee dañ naan la noo yaa ko mag tuuteeg yii moo la mag ak yii ñu jox ma booy naar ma bañ parce que ba tey dañ naan ay affaire comédie la ndax booy naar ni mu mel neex noonu bugguma foofu ñu jox ma sos mu am tuuti kal kon su ma bàyyee ñooñu ñëpp jël kii xale bu ndaw jël ko mu ne dafa am doole daa am kattan kon cela veut dire que am na lu ma bëgg ci làmb làmb wutuma ci xaalis bonheur laa ciy wut bonheur bi ma ciy wut dama koy am far force sama bonheur mooy ndam te far force dama koy am dinaa su ma la jàppee dinaa la duma dinaa la daan te du ma jàppante ak yow sa combat yëpp nag day diire ay 450 minutes bëriwu ma ak yow 450 minutes dama lay duma dama lay dóor ba nga tëdd man maa la ko wax. dama lay hmm. man ñëw ma di benn bennal kii damay bëreeg moom kii damay bëreeg moom combat bu metti déggoo lu ma la kii Lamine combat bi daa am lu ko xam ma jëlee combat bi ñu bëri dañoo taxaw naan Ziza li muy dégg parce que est que wax mu leer man dama am staff am encadrement gars yi lu may wax loo xam ne man dama koy def kii du comédien de billahi wallahi lazim kii du comédien mais xam lu ma mais benn tamit dama koy sant parce que xamul tax parce que tey ji làmb ji am toll na fa nga xam ne niveau coow lu nekk ak am na si du ma ko dépassé du ma dépassé parce que moom amul problème nit ku baax la xam nga na nga koy waxal mais làmb ji daa am fu ko teg Lamine parce que man dama ñëw bëri samay morom di leen daan di leen daan di bëri bëri yu metti kenn mësuma xaajal yoon ma dëkk Pikine di ñafe doon booy bu ndaw di ñafe ba yegg si fi mu war a yegg si moo tax te làmb ji daam fu ma ko teg. bañ na bañ na ba ba tey ji làmb ji dañ koy réunion staff yi Papa ñoom As Messi Khadim mbay ñoom grand père Cheikh Omar dañuy réunion ak ñoom Moussa Fall di réunion di ma wax ci làmb ji. parce que xam nga ni làmb ji fu ñu mën a jëmee. Mhm. weddi ñu ñu ñoo ay combat mais tey boo am na a xam ne nii ci wàllu làmb mais duñ ko fekk si ci moom. bu waxee may daf may jàpp daf may naa dugg Pikine man maa la ko wax man Aziz <laughs> ci làmb lan yaakaar moom yaakaaru si làmb yàlla mu ngi koy sutura ñun danoo yaakaar ci làmb nii boo xam ni bokk na ci combat yi ci dàq parce que ñaari mbër yi dañu am naaw waaye ñaari mbër yi tamit dañu am jaar-jaar gis nga Boucher mii bi mu fiy jógee di dem États-Unis Modou Modou yóbbu ko fa liggéey yóbbu ko fa dafa demoon entraîné ci pour am doole ñëw jël si adversaire yi loolu li ma ci xam bari na booba maa yor guy gi visa mi bokk ci xale yi nga xamante ne bi ñoom Ama Baldé di génn dañ ko boole woon ci ñetti xale yi ak ñaari yar ak Boy ëllëg Pikine kon tey bu ñu leen boole naan boole nañ ñaari libération boole nañu ñaari jàmbaar mais boole nañu ñaari xale yoo xamante ni arène national bi ni ko xale yi def mën nañ koo def incha allah kon nag maa ngi ciy woote jàmm di ci woote fair play den xam ne derbi Pikine géejawaay jeexagul waaye géejawaay mooy Pikine Pikine géejawaay amba en arrière amba en arrière teel mu sifflé bu foofu rek waaw dama ko tegal si amba en tàggatoo lan. tàggatoo ci booy kii non dafa kii. Ah, waaw nee na waa Pikine dañoo bëgg làmb ji. waa Pikine ñoo yay bëgg làmb ji. bëgg nañ ko seen paa yëpp ak ñëpp nañ génn sa xarit yéeg ñëpp nañ génn jàppale. ñoom Zil Balde. Zil nag Zil Balde indi na mbër ma daan ko. na ñëpp ñëw na ñëpp. na si ñëpp jàpp non ama sama ama kooku sama produit la. ama sama yoon néew ci moom. na ko indi na ko indi yaa ngi dégg déggoo ma de. Pikine amul booy bu ma fa mën a daan na Pikine gépp génn kii su Pikine gépp génnul ba ma toog sentir ni Pikine gépp génn nañ du ma bëre ak moom. damay yëkkati loxoom ne ko demal yaa daan parce que man su may bëree damay bëgg a réew ndax du ma mbëru gox. du ma mbëru du ma mbëru xale. kan. kii xam nga kañ laay commencé ci moom tey la kañ ma petit neenam ay le 20 mai mooy combat bi le 10 mais laay commencé ci moom muy ci entraînement. mu ci lépp lu ma ci war a def le 10 mais laa koy commencé parce que kii terew ma nelaw. am na doole kan moom doole. kan moom doole kii boobu tey mi ngi entraîné téeméeri at man ma toog sa man. mbaru sam bi waaw. ma daanee tey dinaay gëj a entraîné waat ba am combat te sama yaram day ñëwaat. yoo xam ba dit boobu léegi yaa ngi wax. non yow mënoo maa merloo. dërëm waaw moom toogal bu ma joxoon. bu waxal la nga def man du ma ñooñu ngay waxal ñuy arrière de. Ah du ma ñooñu ngay waxal ñuy arrière de. dama ko doon rek dama ko doon dama ko doon napp wuy ma dama ko doon nax dama ko doon dama ko doon nax pour mu jël làmb ji may naxtaan di beesew làmb ji jeex na yow fu ñu daje de.